713 vingt 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre ma di leen dalal jàmm ci xibaar yi bokk na ci ponk yi ci gën a fës tontu ga docteur Abdourahmane Diouf Baaxe ministre Aïssata Tall Sall ci kàddu yi mu yëkkati woon rek jëmale ci ñetteeli mandaaw njiitu réew mi Macky Sall danañu leen andi lay leeral ci digg xibaar yi ci xibaar wa doon wër rek doon wax ni dañu libéré taskatu xibaar wi ji Pape Alé Niang Mimi Touré ak Guy Marius Sagna la ji moo di ministre Ba dox ci ko adressé woon del si tàggat yaram daañu ci ñëw ak position gi nga xam ne moom la maître Augustin Senghor am ci sélectionneur national gi di Aliou Cissé ni ñu koy defee saa su ne rek mbokk yi ngeen taaxirlu aslëf bàkk ba jib ma daal di leen koy yaatalal mu ngoog bàkk ba jib na nuy naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo di ñu teewlu ci Sunugal 24 dal leen jàmm ci xibaar ni ki démb caltine gi la juge tribunal des flagrants délits wu Ndakaaru waroon na jël ndogal ci mbirum ñaari député yi di Massata Samb ak Mamadou du ñeel dossier wu Amy Ndiaye ñi bi la di leen sa toppee nag mi ngi yemoo coup et blessure ak menace de mort seen àtte toxalaat nañu ko rek ba ñaareelu fan ci weeru janvier di fàttali rek ne ci seen Faso la biraloon ci ñoom ñaar ñëpp partie civile bi doon laaj 500 millions ñeel dommage ak intérêt ab ressortissant somalien gu juyoo ci turu Adiko la ñu yóbbu ci yoon di ko toppee rek ay kurpañ yu mu def benn takk der foofee ca boo maraîcher yamu ca nag mu daal di xotti tenue policier bi Diko ab coxeur la ginnaaw loolu nag lañu ko jàpp placé ko en garde à vue ca commissariat wu Pikine passager yaa doon ñaxtu ndax moom naka la ko policier bi di jéem dalale rek mu sippi ko demoon ba tàggoog sagoom butéeyu sàngara si sax la jëloon toj ko doon jéem a jam nit ñi di ko saagana itam takk der bi nag ma nga xew guddi gaaw gi weesu booba ba tey ma nga en garde à vue El Hadj Abdourahmane Diouf dal dinay tontu ministre des affaires étrangères gi di Aïssata Tall Sall gannaaw ab waxtaan mu sekkoon ak sunu naataango doon fa xam ne ni rek référendum bu 2016 réglé woon na problème mu ñetteeli mandat wu njiitu réew mi Macky Sall ba noppi leaderu parti ànd wattu askan wi liggéeyal ëllëg gi nag la mu ko ca tontu ma di bees amu fi atum 2016 constitution bi mujj 2001 la woon te dafa limité woon mandat yi euh, disposition gi ñeel nombre bi bougéwul booba ba ndëgg ni docteur Abdourahmane Diouf moo di ay kàddoom ñeel opération ga ñu dippee bokk kii di Déthié Fall ma nga woon rek ca New York dal di woon na fa nag yëkkati ay kàddu doon ndokkale kilifa diine yi euh, ci action yi ñu def yépp ngir ressortissants yi bawoo États-Unis jaar Brésil la Argentine te doon dund ay jafe-jafe ngir euh, ni autorité consulaire Sénégal ñu benn jéego ngir taxaw sunu mbokk yi nekk foofu te loolu da koy ñaawlu ba fa mu yem Déthié Fall dolli na ci ne rek wax na leen ñu booloo ngir coppite am atum 2024 fexe leen teg ci ay conditions yu baax ñu mën a ñibbi si seen réew dal di koy investir douane sénégalaise dal di nay dox ci ay jéego yu am solo ñeel xeex ga ñu amal rek ngir trafic gu drogue jóge fii ni ki démb ci altine gi nag brigade commercial Karang dañu saisir ci benn woto gu bawoo woon téeméeri buletu cocaïne loolee yem ak 800 grammes nag ña ngi ko xayma ci 64 millions ci sunu koppar ba ñu wéyalee seen ay gëstu ci woto bi nag ñu fekk fa juróomi eh, takku yamba ci maal gi ñaari prévenu nationalité gambienne la ñu ca jàpp placé leen en garde à vue kenn kaa ngi wuyoo ci turu Assane Bouaro keneen ki nag Souleylane Ngum lay wuyoo parlementaire yi leen di Aminata Touré ak Guy Marius Sagna dañu jagleloon premier ministre Amadou Ba ab lettre ouverte loolee nag lañu jublu woon moo di assemblée nationale addu ci rapport cour des comptes gu mujj gi ñeel gestion fonds ya waroon a dugg ci covid 19 gi ña nga sukkandiku woon rek ci ay article 92 ak 94 bu règlement intérieur assemblée nationale tamu yemoo question d'actualité yi ci nguur gi fàttali nañu ministère bi rek fàttali nañu ministre bi nag ne lu tollook semaine a ngi ñu demandé woon ko rek mu teew assemblée ngir ñu waxtaane représentation nationale bu rapport cour des comptes ñu bëgg nag moo di mu jëfee seen ay bëgg-bëgg ni ki dem nag ay xibaar dañu doon wër réseaux sociaux yi doon wax ni rek taskatu xibaar bi di Pape Alé Niang doon itam directeur Dakar Matin gi dañu ko libéré loolee nag dara amu ca ab suux su xamal na sunuy naataango ni loolu amul teg si avocat wam maître Khoureychi Ba dëggalu ko journaliste bi nag ñoo ngi ko jàppaat altine fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi ñu nekk mu tàmbali woonu grève de la faim dibéer gi weesu sax lañu ko hospitalisé woon l'hôpital principalu Ndakaaru laata moo delluwaat rek ca pavillon wam Sarr doon xam ne ni rek grève de la faim ga mu doon def moo ko jàppoon ba mu chuté avion militaire ga doon yóbbu njiitu réew mi Macky Sall ay bori 17h15 la egg ni ki démb foofe ca Tambacounda kii di ministre de l' intérieur Antoine Diome moo dalal njiitu réew mi Macky Sall ànd ca gouverneuru Tamba gi Balde ak yeneen i ndombol tànk ab mbooloo mu takku sax lool la ñoo daal di génn topp cortège Macky Sall gi jëmoon gouvernance su Tambacounda Oumar Mamadou Balde xam ne ne nag ci googule séjour njiitu réew mi Macky inaugurer ay infrastructures lancer ci ay travaux publics itam sekk waxtaan ak ay acteurs socio-économiques euh, mooy jiite itam conseil des ministres ëllëg ci àllax ba gii bu 10 heures jotee ca gouvernance su Tambacounda tàggat yaram la ñu koy ndar keppee ni ñu leen ko waxee woon rek ci bopp bi mbokk yi ay weex ci ginnaaw lañu waxoon ni rek fédération sénégalaise bu football dafay jógee ca Ouest Foire ga mu sampe woon ngir rek dem ci beneen bâtiment fileeg ñu koy tabaxal nag coppite am na ca bu nu sukkandikoo ci record fédération sénégalaise bu football liberté 6 extension lay sampe ji boori magasin wu Auchan ba ma nga fas yéene nag moom immeuble R plus 7 booba di ko dikkee juróomi million weer wu ne journal bi wéyal naan fédéraux yi dem nañu fa démb ci altine ba saytu bërëb ya dal dina leen di neex bi mondial bi jeexee ak ndëgëni nag ku ne ngi yëy yàbbi rek ci mbiru Aliou Cissé ñenn ñi a xam ndax a 2024 ñu ci bari itam bëgguñu mu dem ndax la ñuy ragal mu di équipe bi jaaree fa tas njiital fédération sénégalaise bu football bi di maître Augustin senor la di ca tontom moo dina Aliou Cissé day des ci poste bi nee na dañu am projet te moo di sélectionneur national gi gunge ndawam yi ci CAN Côte d'Ivoire bu 2024 contrat wu Aliou Cissé nag dañu ko yokk ba atum 2024 mbokk yi lii lañ leen andiloon tey ci xibaar fii ci Sunugal 24 dañu leen ko toppalaat ci lu ci gën a fës ba lëg incha allah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 713 vingt 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor tax